Modou Mamoun Sène fédération sénégalaise de boxe. Euh, alors association bi euh, FILS ak fédération sénégalaise de boxe dañoo bokk objectif loolu moo tax seen ànd gaaw euh, ñu conclure très rapidement des accords parce que dañu bokk objectif ñaari nit bu ñu bokkee objectif seen ànd day yomb te aussi mën naa yàgg mais aussi. je pense que Sénégal moo ko soxla aussi puisque sport dafay euh, entraîner jeunesse sénégalaise ci l'excellence parce que compétition la te ku ñu waxee compétition fin ba gagné lañ ci wax te kuy gagné nag moom ñun loolu la ñu wër un Sénégal qui gagne loolu la ñu soxla un Sénégal qui gagne avec ses lutteurs mais avec ses boxeurs aussi euh, mais aussi avec euh, son industrie mais aussi avec ces institutions yi nga xamante ni dañ leen di jàppale moo tax tey suñu signature bi nekk une signature tripartite muy entre ñun ak FIS ak port de Dakar loolu moo tax tey ñu signe convention bi voilà. da ngeen fas yéene absolument pas euh, li nga xamante ni tey la ñu sumb kenn du ko sumb ci at amul ab parce que ay génération ay génération ñun ñaan nañu yàlla. tey jii bu yàlla jëlee suñu bakkan ñeneen donn ko yéegal ko monter ko en puissance gën ko rafetal ñun tey loolu lañu ñaan yàlla tey lu ñu lu ñu lu ñu ji rek lañ la ñu def tey dañuy ñuy ji rek ñu bàyyi mu meññ xale yi continuer ok ñi ngi nuyu ñëpp euh, Cheikh Bachir ñu ngi lay nuyu di nuyu le président fédération boxe bu Sénégal di euh, Mamour Sène ak équipe am euh, Youssouf si ak ñoom monsieur Boye ñu ngi leen di nuyu may nuyu aussi waa association FILS yi ma àndal ci taxawu sama wet ñi samay kilifa di Ibrahima Ly le secrétaire général de l' association Ibra Mbaye euh, euh, trésorier bëgg fàllu mi yor comité d' organisation bi ak sama papa Ousmane Diouf ak yéen mi yor communication bi tey dañu ñëw di def lu am solo parce que ku ne xam na ni boxe ak euh, ak ak ak ak lutte la ñun nag association FILS li ñu tax a jóg depuis lu yàgg mooy fexe ba bépp mbër am dara am métier ba pare am emploi kon euh, lu weesu suñu ginnaaw am na convention yu bëri ñu jot a signé am ay mbër yu bëri ñu formé mais tey boxe bi lañ bëgg tey mbër yi nga xam ne tey ñu ngi ci làmb ji tey y a plus de cents licenciés il sont au Sénégal tey booy seet at bu ne lu tolloog 100 lutteurs ñoom ñooy compétir léegi nag ña ca des war nañoo mën a ñëw wàll yaan ci boxe bi boxe lu nekk lu nekk lu am solo loo xam ni ñoo ñu ñu bëgg tey ànd ak waa fédération boxe tey ci teewaayu DG Port mu ñëw assister ko bëgg ñu ci accompagner ñu nag waa fédération fexe club ñu ubbi ko xool nan la ñuy former xale yi jéem leen a jàppale ba ni ñuy amee cachet ci làmb ji tey ñu koy am cachet ci ci boxe bi. lu ñu bëgg daal mooy mbëri tey champion yi nekk ci làmb ji dem ba ñu mën a nekk ay champion du monde ci boxe loolu lañ fas yéene liggéey bi nag tàmbali nañ ko. yàlla def ñu dajeeg ñu am pas-pas comme ñun parce que association FILS fu ñu nit woo fii ba ci li koro nee ñu liggéey lañ bëgg ñu wuy si ko tey ñu fekk fi un jeune ànd tamit tey ñu am détermination muy monsieur monsieur Sène ñu xam ko ci liggéey mu nekkoon un immigré ah, boo xam ni tey dafa ñëw pour liggéey Sénégal ànd ak ñoom Youssouf si nekk ay lii bërk démb la ñu woo xam loolu ko am pas-pas moo ko bëgg loolu yëpp bëgg liggéeyal Sénégal moo tax ñu nag ñu ngi leen di xamal leen ni niñ ko bëggee noonu lañ ko bëggee incha allah di ñaan yàlla mu yor jàppale yàlla nañu yàlla mottali suñu yéene te ñun dinañ commencé dès demain dinañu commencé def ay réunion dinañu convoquer tous les écuries waxtaan ak ñoom fexe club boobu ñu ñëw ci ñu commencé leen former bu ko defee nag bu ñu ñëwee commencé compétir ci boxe bi dinañ gis beneen changement boo xam ne dina gën a yaatu ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla yàlla na yàlla mottali lépp di la assistance bi yëpp di remercier DG Port bi nga xam ni moom it aussi partenaire la ñëw wax dëgg yàlla ku lii moom it wane na cofeelam ak bëgg a liggéeyam kon nag yàlla nañu yàlla boolee jàppale euh, ba ñu am ci ndam ñu ngi gërëm ñëpp nag jaajëf merci beaucoup jaajëf